Rewmi 24 TV mi nga wax yéen a ko gis mbokk yi loolu foofu ci Thiès lay xewee police yi ñoom rek ñoo doon eh, jéem a dal ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy Pire waaye nag gis ngeen dàq ji nañ leen dàq yu métti ba taal seen oto daw mu mel kon loolu moom moo xew foofee ca Thiès ginnaaw ba nga xamante ne tey ci 4 février 2024 bi mu mel ne ñii di waa police yi ñi leen dàq ji rek ñoom ñooy ñi nga ñoo doon def seen campagne di tak deree taxaw rek di leen gaasé loolee war rek askan ba fipp mu mel ne rek oto police ba kon mu jéem naa wane ginnaaw di daw mu doon loo xam catastrophe la ci Sénégal fi mu toll nii kat ndax bu ñu xoolee kat danger bu métti la askan bi di dund waaye daal tey ci campagne bi mooy mel ne daal dinay tàng jër kon bu ñu xoolee ca Thiès loolu moom moo fi ginnaaw ba nga xamante ne rek ña ngay génn di def seen ab caravane ñii di takk dere yi daal di leen di bloqué rek waaye ñu xeex ak ñoom ba humilier leen humiliation bu doy waar ba takk dewere dere wane ginnaaw daal di rek daw taal seen oto mu doon loo xamante ne moom la ñu nommeeku tey jii ci 4 février bi foofee ca Thiès fii ñuy wax ak yéen nii